aussi Barthélémy Diaz alors Barth nag euh, le euh, sénégalais yi àndandoo rien doon benn kër ni képp saaga mais est-ce que nous du une anarchie. xam nga Diaz il est contradictoire envers lui-même heureusement il m'a écouté hier bi may taxaw ma ko un maire de Dakar n'a pas le droit d'aller jusqu'à Tambacounda di saaga ndey da nga excuser publiquement je l'ai dit ici heureusement que Barthélemy Diaz m'a écouté il s'est excusé qui saga yooyu mu def à Tambacounda hmm. alors ma ñëw ci moom Barthélemy Diaz en question il est en contradiction avec lui-même Barthélemy Diaz moo taxaw di naan Ousmane Sonko saga warulu yoru réew Amna wala amul Barthélemy Diaz taxaw na fii su ma suñu amul suñu amé temps bi dina dinaa la génne vidéo bi ba muy taxaw di saga kat warul yoru saga kat moom tey mu ngi ne sénégalais ku ñu saaga ñu saaga la moom taxaw na dëmb dem Tambacounda di saaga benn nit bu yuuxu turu Ousmane Sonko kon yow ana saagakat bi je la question directe à Barthélémy Dias ana saagakat bi ana saagakat bi la doon wax ni que warul yor réew te yow yaa ngi saaga publiquement dans les rues de Tambacounda yow Barthélémy Dias taxaw nga fi nga ne Ousmane Sonko saagakat warul yor réew. yo ya ngi publiquement dans les rues de Tambacounda Ousmane Sonko taxaw na meeting mu man maa ko wax man Ousmane Sonko kep kuy saga bokkul ci ñun Pastef il l'a dit am wax nako wala waxuko hmm. pourtant Ousmane Sonko la ñuy ni que saga saagakat la Ousmane Sonko n'a jamais insulté publiquement boo leen vidéo yi ngeen génnee ñuko bu dé Ousmane Sonko fu mu taxaw di saga nit dina la nangam tan tal sa excusez-moi ngeen baal damay expliquer juste. Euh, gatsa gatsa mais gatsa gatsa du Saga. Samuel Do. gatsa gatsa mo Barthélémy Dias son mentor moi, andi Sénégal. Mm. Khalifa Sall moo andi gatsa gatsa au mm, Sénégal. Mm. Ousmane Sonko ci Khalifa Sall la jëlee gatsa gatsa. gatsa gatsa du Saga. gatsa gatsa comment nga lan gatsa gatsa œil contre œil dent contre dent loolu mooy gatsa gatsa mais Barthélémy Dias qui insulte public ba pare nga waruñu ko saga kat légui yow est-ce que yow Barthélémy Diaz war nañu la dénk Sénégal un jour est-ce que sénégalais war nañu dénk Barthélémy Diaz Sénégal un jour mom mii saga publiquement mom mi organiser point de presse am dina am comme koko ko saaga dina la saaga lu ëpp c'est ça la réalité sénégalais ñuy juge hein? man damay def analyse pour sénégalais yi ñoom ñuy juger ñoom ñooy voté sénégalais yi ñooy voté. mais alors Barthélémy Dias saaga na Bougane dégg nañu ko ci vidéo di naan booy Pastef fii kuy jaakaarloo kuy ñëw jaakaarloo ak moom mun nangam ndeyam. waaw parce que Barth ñoom mooy. mooy ñoom su yom su yom ñam nañu déjà xama ñu doon saaga Ousmane on a leen rendez-vous le 30 xama fallu su ñëwaatee dinañ ñamaat xama fallu ok ñu doon ñu doon taxé Ousmane Sonko d'insulteur mënuñu la génnee benn vidéo bu mu Ousmane Sonko taxaw di saga publiquement pourtant ñom mën nañu leen voir ñom ñep di génnee seen vidéo ñi doon saga publiquement que ça euh, soit Bougane dafa saga fi publiquement les vidéos sont là sur YouTube Barthélémy Diaz saaga saga na fii publiquement les vidéos sont là récemment dem ba sax dem a a ba à à kii à na publiquement ci ndey mais ñom ñii di wax ni Ousmane Sonko c'est un insulteur dafa doon saga Macky Sall duñu ñu génnee vidéo bu mu Ousmane Sonko taxawé di saga publiquement voilà l'imoy nafek. naafeq Barthélémy Diaz il aime tellement utiliser ce mot là nafek. Nafek, ça fait partie des argons de Barthélémy Diaz il aime tellement utiliser ce mot là nafek. léegi ñan ñooy naafeq je demande ñan ñooy naafeq mais avant ñiy taxé. mais avant mais saaga kat alors que yow yaa ngi saaga publiquement. avant ba ba ba ba incident bi amee gis neen Barth wéetoog ak li nga xam nekk moo di agent nee na bu ma xale yi woowee Pastef wala kon bu xale yi wax Sonko wala kon bu ma kenn wax Sonko. waaw suñ suñ ma ko waxee di ngeen am liggéey concrètement Arfan Barth lu muy bañ. est-ce que Arfan tamit du ko éviter. xam nga Barthélémy Diaz mënul dëkkee di menacer sénégalais yi. il n'est rien du tout. mais loolu menace la. menace la mais dafa wax Arfan li mu doon ku taxawoon encore dafa ne. ma ma ne déglu ma. dina yóbbu ay nitam. Barthélémy Diaz nee ne ku taxaw di ko ne Sonko alkaati dinañu am liggéey. léegi ban liggéey yi wala da koy fetal da koy rey day génne pistolet am ray ko comme il l'a fait avec l'autre ou bien da koy génne wala da koy dóor à da da maltraiter à mort da koy tabasser à mort je ne sais pas mom lu mu nar Barthélémy Dias na mu wax sénégalais mais Barthélémy Dias il n'est rien du tout dans ce pays pour menacer des sénégalais fofu lay waxee pour mom me comprendre Barthélémy Dias gënu fi kenn doigt bu bu parce que pistolet <laughs> il se trompe il se trompe c'est lui seul qui menace les gens ici Koufi mais mais mais à quoi sert ces menaces là mais il n'a qu'à rester si il reste chez lui dama Barthélemy Diaz Momoul Sénégal Momoul Dakar. donc Bart il le dit avec les autres c'est la même chose que lui. donc Barth n'a pas le droit de vaquer à ses occupations il n'a pas le droit de menacer les Sénégalais foofu lay waxee waxuma la ni droit de vaquer à ses occupations de Barthélemy Diaz A le droit de vaquer à ses occupations parce que il est un citoyen et il est libre il est libre mais man ma il n'a pas aussi le droit de menacer les Sénégalais il est qui il est qui pour menacer les Sénégalais Lui, Barthélémy Diaz. Même il sait qu'avec ses gardes-corps-là, les menacer. Mais s'il est sans garde-corps, il ne peut pas menacer personne. Parce que les gens sont taxés, ils ne Ils ne mais il n'a pas le droit aussi de menacer les Sénégalais. Si Barthélémy ne veut pas être soncorisé, il n'a qu'à rester chez lui tranquillement. Personne ne va le trouver chez lui pour lui dire son sonko. Il est dans son périmètre. C'est lui. Tranquillement. Tranquillement. Si tu choisis de faire de la politique, si tu choisis d'être un acteur public, il faut s'attendre à ces choses-là. Il faut s'attendre à ces choses-là, Fallo. Barthélemy Yaz Dakar parce que man boy Dakar là boy Dakar? Barthélémy Diaz est le premier à être né à Dakar je pose la question si Barthélémy Diaz il est le premier à être né à Dakar. alors mais enfin, ne bëgg commenter. non il faut laisser ces choses je crois que Barthélémy euh, Diaz. qui a pendant longtemps. j'ai à Dakar. image sérieux. Euh, écran il faut qu'il arrête. Diaz concrètement euh, suñ ko euh, du côté de la régie lu ci mën ci koñam ñu ay banderole Sonko ñoñu am liberté comme mom lu mu liberté ci quartier bi. alors alors alors enfin, quand même. légui mom lu ci mën ci liberté ni ci koñam ñu def Sonko imagine ngeen ni près de chez lui. oui lu il n'a pas acheté le le quartier jëndul quartier bi mom nu mu amé ci quartier non la kenen amé ci quartier bi.

Voilà, tali tali Barthélemy Diaz il faut arrêter Barthélemy Diaz bu dëkkee Nord Foire wala bu dëkkee Wakam, wala mu dëkk feneen Mon périmètre am la yor qui ki am périmètre sa liberté s'arrête chez lui bu franchir ses murs la liberté de l'autre commence il faut que mon mu xam loolu man dama ni que Barthélemy Diaz est assez est assez mature ci loolu mais dès li man loolu man dëkk daf dama jàpp ne il est assez mature politiquement. mais le gars il n'est pas mature. comment tu peux être dans un pays de démocratie au Sénégal. il y a une santé démocratie bobo liberté d'expression débat contradictoire chaque jour Barthélémy Diaz wako mais yo barthélemy Diaz tu ne tu digères pas en tant que politicien nit wax la Sonko Sonko la gëm mais au nom de quoi tu es un politicien nga liberté d'expression nga la démocratie ñu ne la waaw nga ne liberté kon la contradiction sénégalais ne la waaw mais alors que yow Barthélémy Diaz médias, ku la aussi contradictoire ne la aussi Sonko yo bugoko. ko non il faut arrêter mais enfin il n'a pas à menacer les sénégalais point. si mais Barthé parce que gënu fi mais Barthé au delà. Barthélémy Dias jëndu fi un quartier. mais au delà au delà de ces menaces Dakar. il n'est pas le premier natif de Dakar. mais au delà de ces menaces mais au de ces menaces Barthé mi Euh, accu, euh, attaqué Ousmane Sonko si bien débat télévisé sera en français nena na baye mag yu muy nogu Amadou Ba et compagnie je suis mimi. ak mom avant. jàpp na ni Sonko déggul français. Euh, japp na ni Sonko déggul français. concrètement man man Diaz. Euh. musuma gis Barthélémy Diaz di làkk français bu extraordinaire. way hmm. oui ko gisé nga wax ma Barthélémy Diaz làkk na fi français personne n'a repris ses expressions di ko di ko mais Ousmane Sonko par contre la na français boo xamante sénégalais toog nañu. Casus Belli Casus Belli di le mot là dama né musuma gis Barthélemy Dia mu lakk un français extraordinaire à part six verbe complément Ousmane Sonko la envoyé na fi ay mots yo xamantene presse bi presse bi lem dañoo dem di ubbi ay anal Dis, dis, dis, chercher le mot là, Cassius Belli. Pourquoi Ousmane Sonko a utilisé Cassius Belli Que signifie Cassius Belli Amna ñu amtene comprendre ñu sa Cassius Belli dès le départ, ñu commencé di attaquer Ousmane Sonko. Bu ñu démé ba gëstu bu ba comprendre Cassius Belli, ci lañuy commencé dina ah OK kon Ousmane Sonko li la wax. C'est ça la réalité. Donc Barthélémy Diaz bu taxawé tay di le mom mo gëna dégg Ousmane Sonko français. <laughs> man le débat en <laughs> France. non mais le débat en France c'est un complexe. ok kenn du bàkku langue. mais enfin ñun bëgg na niveau bu relevé quand même. mais euh, une langue assimilée mais on vraiment une langue assimilée. une langue assimilée comme le mm. français. Mm. une langue assimilée que nous on a hérité des colons parce que Sénégal le français Sénégal le français c'est une langue que nous les Sénégalais, les colonies de la France, qu'on a hérité des colons, les Français. n'ont pas de français. Sénégalais de français. Pourquoi aujourd'hui, dans un pays qui parle Olof, qui parle Djola, qui parle Serer, qui parle Sosé, qui parle euh, euh qui parle Lenen ak comme langue, et on dans ce pays-là, des noms, non vous faites école l'école ñii lay produire ci ay ay ay ay ay élèves nañu tëj école bobo parce que tu fais allusion à la langue française. alors c'est clair. Barthélémy est aussi bas quand même ma musuma jàpp ni que ni le niveau de Barthélémy est aussi bas. alors c'est clair. une école qui enseigne le français nga ne des bouffées ñii lay produire parce que êtes français. na faites nañu tëj école bi. <laughs> la vocation principale de l'école c'est quoi c'est pas la langue xam-xam la xam-xam. alors ak langue boo mënta utiliser ci école. si tu réussis à transférer entre à transférer le savoir. Hmm. à tes élèves. Hmm. loolu la ñuy ut c'est la vocation principale de l'école mais c'est pas la langue. alors c'est clair donc Barthélémy Diaz le niveau est aussi bas. moom mosuma jàpp ni que Barthélémy Diaz son niveau nii la wàccee. ci école alors ba tey Barth.

Ah, les deux ont parlé du français au Sénégal. On les a tous écoutés. on les a tous écoutés. Mais français extraordinaire. On n'a jamais utilisé un mot de Non, Alpha, se connaissent ils se connaissent. ils se connaissaient pas ils se fréquentaient ils se connaissaient pas Ousmane Sonko mu doga xam jiko Barthélemy Diaz Barthélemy Diaz mu doga xam jiko Ousmane Sonko. alors ils se connaissaient pas. alors doon fréquenter ils se fréquentaient pendant un moment. mais man limay wax ni dama né bu ñu dans un débat public Barthélemy Diaz du prononcer français bu gën sein sen bu Ousmane Sonko. alors enfin, euh, mii non Ousmane Sonko ses expressions de la langue française sont repris à travers le continent les expressions que Ousmane Sonko utilise en langue française sont utilisées dans toute la diaspora sont utilisées dans la sous-région les Burkinabés utilisent le discours de Ousmane Sonko comme un certain Patrick Lumumba les Maliens utilisent les expressions de Ousmane Sonko comme un certain Modibo Keïta les Guinéens kazalika c'est la même chose. alors c'est clair mais man un Français de Barthélémy Gaz qui est utilisé dans la diaspora, Dis-moi <laughs> un Français de Barthélémy Gaz qui est utilisé dans la sous-région. nous sommes Barthélémy Diaz. donc français. <laughs> mais mais da dafay dafay ruube. alors alors leer na mi ngi noonu le dama mi ngi noonu yooyu mbiru ki nga xamné ne que moo di euh, Barthélémy bart nak nag démb mu sax tamit mu daal euh, jox li nga xamné ne que moo di benn écho et que tout le monde euh, ñu daal si addu daal di jëmale. exactement alors ginnaaw ki nga xamné ne que moo di Barthélémy Diaz dañuy daal di jàllaat xamna bart Barth enfin Barth moom. franchement il est sorti dans quelle école. sûrement école catholique yi lay génne. école catholique dina dina dina am background bi.